العبادة والخدمة لجام يلا أبلكي الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين مبكي السلام عليكم ورحمة الله كده في جيم ديال لسيوات إن شاء الله تعالى كي سنو بند كي والو علم الفرائد مو يقام قمو ميراث di jégalu bu baax a baax nag ci xaw gee yéex dugal e, bu ko defee tey jii nag incha allah dañuy jàng mbirum mbokk mu jigéen mi bokk ak néew bi ak baay bu jeexee ñu teg ci mbirum mbokk jigéen mi bokk ak néew bi baay rek bu jeexee te gudd lool ñu teg ci mbirum mbokk yi ci wàllu ndey maanaam doomi ndey ñi nga xam ne ndey rek lañ bokk ak néew bi incha allah taala bala ñuy tàmbali ci mbokk mu jigéen mi bokk ak néew bi ndey ak baay ñu fàttali ne dars bale jàll bi ñuy jàngale sët bu jigéen am na ci loo xam ne njuumte la woon bu defee ñu leeral ko doog a tàmbali dar sa tey bi mooy bu fekkee ne bintaani dafay nekk mooy ñaari doom yu jigéen bintul ibni nekk fi nga xam ne dafa nar a daanu kon boobaa day seet ci suufam bu fekkee ne ci suufam am na góor gu ko mën a dimbale day jëli góor googu yi mu dimbale ko lu mel ne bintaani ñi ngi fi bintul ibni mi ngi fi ibnu ibnu ibni mi ngi fi nga xam ne ñaari doom yu jigéen benn sët bu jigéen benn sataataat bu góor kon bu boobaa bintul ibni day jëli sët bu góor boobee ci suuf mu ñëw dimbale ko ndax bu ko defut day daanu bu ko defut day daanu ndax bintaane dañ koy daane waaye nag bu fekkoon ne narta daanu moom nga xam bint benn doom bu jigéen moo fi nekk ak bintul ibni benn sët bu jigéen ak ibnu ibunu ibnul ibni kon bu boobaa bint day jël nisifam bintul ibni jël sudusam bu ko defee nag la des góor googee ñëw jël si ko bu fekkoon ne it góor googee dafa yamoon teg ay jigéen maanaam dafa am benn doom bu jigéen benn sët bu jigéen ay sëtaat yu góor ay sëtaat yu jigéen boobaa kon bint day jël nisifam bintul ibni jël sudusam bu ko defee nag sëtaat yu góor yooyee ak sëtaat yu jigéen yooyee daal di dikk jël si la des séddoo ko góor ñaar jigéen benn foofu rek lañ njuumte li nekkoon mooy ne sët bu jigéen bi direct duñ ko yemaleeg sëtaat yu góor ya ak sëtaat yu jigéen ya li fekk moom sët bu jigéen bi dafa nara a daanu mu jëli sëtaat yu góor yee ñu ñëw dimbale ko. bu ko defee nag mbokk mu jigéen mi mbokk ak néew bi ndey ak bàyyi am na ay mbir yoo xam ne ci lay dond yoo xam ne am na yum nuróoleeg doom bu jigéen nuróole ko it sët bu jigéen. yooyu mooy euh, bu fi nekkee moom dong day jël genn wàllu alal ji ku faatu woon bàyyi fi mbokk mu jigéen mu mbokkal ndey ak baay rek mbokk mu jigéen moom mu bokkal ak baay dañu xaaj alal ji ci digg ba jox ko genn wàll gi bu fekkoon ne nag ki faatu daf fee bàyyi ñaari mbokk yu jigéen yu mbokkal ndey ak baay dañuy xaaj alal ñetti xaaj jox leen ñaar ya kon mbokk yu jigéen yi bokk ak néew bi ndey ak baay bu matee ñaar dañ leen di jox solu sey ni muy ñaari ceer ya ba tey dana ñu dond ci wàllu taxsiib bu fekkee ne dañ fay nekk ak seen mbokk mu góor ki faatu bu fi bàyyee mbokk yu jigéen ñu mbokkal ndey ak baay bàyyi fi góor mu mbokkal ndey ak baay rek kon bu boobaa alal jëma nga ci seen diggante ñu séddoo ko góor ñaar jigéen benn. ba tey mbokk yu jigéen yi bokk ak néew bi ndey ak baay danañu xasabaal ci bu ñu àndeek bint wala ñu ànd ak bintul ibni ni ñu xasabaale mooy. ku faatu woon bàyyi fi benn doom bu jigéen ak benn mbokk bu jigéen bu mbokkal ne ak bàyyi bint ba day jël nisif maanaam doom ju jigéen ja day jël genn wàllu alal ja ganeen genn wàll ga mbokk mu jigéen ma jël ko ngir day xasabal moom aw des rek lay xaar léegi noonu bu fekkoon ne dafay nekk ak bintul ibni bintul day jël nisif moom mu jël nisif sa ci des ndax moom aw des rek lay xaar léegi noonu bu fekkoon ne dafay nekk ak bintaani dañuy jël seen sulusaan yi moom mu jël la des ndax aw des rek lay xaar nekki noonu bu fi nekkoon ak bint bintul ibni ak moom bint ba day jël nisif bintil ibni ba muy sët ba jël sudusam moom mu jël si la des ndax aw des rek lay xaar day xasabaal kon loolu mooy e, mbiram ci bu ànd ak e, doom bu jigéen mbaa mu ànd ak sët bu jigéen waaye nag am na ñoo xam ne danañ ko rotal du doon du dara dara dara moom sët b moom mbokk mi nga xam ne moo bokk ak ñëw bi nday ak bàyyi ñooña bokk na ci doom bu góor bu doom bu góor amee benn mbokk dootul dondati niki noonu sët bu góor bu bàyyi ko ci doom ju góor saa boo xam ne ki faatu bàyyi na fi sët bu góor bu bàyyi ko ci doom ju góor benn benn mbokk dootul dondati waaw ak lu sët ba suufee suufe niki noonu it ki faatu bu fi bàyyee bàyyam benn mbokk dootu dondati loolu mooy li ñu sukkandikoo ci mazhab bi bu dee ci imaam abi xanifa nag day wax ne maam bu fi nekkee benn mbokk dootu dondati waaye maam moom mënta yiir mbokk waaw mbokk ci wàllu ndey lay daaneel waaye mbokkum ndey ak baay ak mbokkum baay maam du leen daaneel kon mbirum mbokk mu jigéen mi mbokk néew bi ndey baay mi ngi noonu mën nañ la ko baamuwaatal ngir nga takk ko mooy bu fi nekkee moom dong day jël genn walo alal bu matee ñaar mbaa ñu ëpp ko ñu jël ñaari ceeri alal ji bu ñu fi nekkee seen naataango bu ngóor ñu séddoo alal ji góor ñaar jigéen benn e, bu fi nekkee doom bu jigéen it day xasabal xaar aw des niki noonu bu fi nekkee sët bu jigéen day xasabal xaar aw des bu fi nekkee doom ju góor day daanu du doon dara. bu fi nekkeek sët bu góor bu bàyyi ko ci doom ju góor day daanu du am dara bu fi nekkeek bàyyi day daanu du am dara hmm, waaw loolu mooy ñi nga xam ñoo koy daanu daaneel wax naa léegi maam waaye loolu imaam abu xanifa waxam la waaye sukkandikowuñ loolu mbokk mu jigéen mi nga xam ne moo bokk ak néew bi bàyyi rek bu fi mbokk mu jigéen mi nga xam ne moo bokk ak néew bi nday ak bay nekkut moom moo fi nekk kon moo koy wuut mooy taxaw taxawaayam kon la nga waxoon rek bu fi nekkee moom dong day jël gën wàllu alal ja buñ fi nekkee ñaar ñaari mbokk yoo xam ne bàyyi lañ bokk ak néew bi ñu jël ñaari ceeri alal ja bu fi nekkee seen mbokk mu góor eh, ki faatu bàyyi fi mbokk yu góor yu mbokkal bàyyi rek bàyyi waale fi mbokk yu jigéen yu mbokkal bàyyi rek alal ja ma nga seen diggante ñu séddoo ko góor ñaar jigéen benn eh, bu fekkee ne ñoom doom ñoo fi nekk wala bu fekkee ne nekk nañ fekk. ñeneen ñu war a jël cër te daanee luñ leen ñu xaar ñooña la nga waxoon it bu fi nekkee doom bu jigéen day xasabaal léegi noonu ki faatu bu fekkee ne dafay bàyyi doom bu góor doom bu jigéen bàyyi fi mbokk mbokkal bàyyi rek tey jigéen kon doom bu jigéen ba day jël am ni sifam bu ko defee nag la des mbokk mu jigéen mi mbokkal bàyyi rek jël ko ngir da doon xaraw des niki noonu bu fi nekkoon nag sët bu jigéen ku bàyyi ko ci doom ju góor it ba tey day xasabaal sët bi jigéen ba day jël genn wàllam muy ni si geneen wàll ga ca des mbokk mu jigéen ni mbokkal bàyyi rek daa di koy jël eh, ngir ak xasabaalam loolu nag nga waxoon ci mbokk mu jigéen ñi nga xam ne moo bokk ñëw bi nday ak bàyyi kon mbir yooyu lañ dëppoo mbir yi nga xam ne wuute nañ ci nag eh, mooy saa boo xam ne ki bàyyi na fi mbokk mu jigéen moo xam ne daa bokk ak moom ndey ak bàyyi bàyyi waale fi mbokk mu jigéen moo xam ne daa bokk moom bàyyi rek kon boobaa mbokk mu jigéen mi bokk ak ñoom bi ndey ak bàyyi day am genn wàll muy nisif bu ko defee nag mbokk mu jigéen mi nga xam ne moom bokk ak moom bàyyi rek dal di jël sudus mu doon takmilatu sulusayni na nga xamoon bint di ko def ak bintul ibni rek boobaa noonu la ñuy def. nga jàlla wax ne bu fekkee ne kifaatu bàyyi na fi ñaari mbokk yu jigéen yu mbokkal nday ak bàyyi kon boobaa moom euh, day daanu moom euh, mbokk mu jigéen mi bokk ak néew bi nday ak bàyyi rek comme la nga waxoon ci bintaani buñ fi nekkee bintul imni day daanu boo amut ku ko sowe maanaam boo amut ku ko dimbale kon moom yiit loolu ngay wax ne bu fi ñaari mokk ñaari mbokk yu bokk ak néew bi nday ak bàyyi tey jigéen nekkee moom day daanu lu dul ne dafa am ku ko dimbale maanaam mbokk mu góor dafay nekk moo xam ne dafa bokk ak néew bi bàyyi rek ni moom waa kon waxtey ñi dañuy jël seen cër rek bu ko defee la ca des ñoom ñu seddoo ko góor ñaar jigéen benn kon loolu mooy mbir yi nga xam ne moom euh, bokkulewu kook bokkulewu kook euh, bokkulewu kook mbokkum ndey ak baay ba tey nga jàll yit la nga waxoon ca mbokk mu jigéen mi bokk ne bi ndey ak bàyyi ne bu fi nekkeeg doom ju góor day daanu bu fi nekkeeg sët bu góor day daanu bu fi nekkeeg bàyyi day daanu ba tey la nga waxoon ne boobil jaddi xindal imaam yi abi xanifa it day daanu waaye loolu eh, sukkandiko wuñ ko ci mësëb bi imaamu malik ak ci li ëpp ci borom xam-xam yi maam mënta daaneel mbokk lu dul mbokk ci wàllu ndey rek waaye mbokkum ndey ak bàyyi ak mbokkum bàyyi rek maam mënu leen a daaneel nga wax ne it bu fekkee ne dafay nekk ak mbokkum ndey ak baay mu góor day daanu hmm. nga dolli ci mëneen mbir it ne bu fekkee ne dafay nekk ak saqiixa benn mbokk bu jigéen bokk ak néew bi ndey ak baay moo fi nekk waaye nag da caa boole nekk fi ak bint mbaa mu boole fi nekk fi ak bintul ibni maanaam ki faatu dafee bàyyi doom bu jigéen mbaa mu bàyyi fi sët bu jigéen bàyyiwaale fi it mbokk mu jigéen mu bokk ak néew bi ndey ak baay bàyyi waale fi it mu jigéen mu bokk ak néew bi baay rek kon boobaa mbokk mu jé mbokk mu jigéen mi bokk ak néew bi baay rek day daanu lan moo tax ndax saqi xatu waxoon nga léegi ne bu fi nekk bint day xasabaal bu fi nekk ak bint ibni day xasabaal kon bu boobaa xam nga ne bint bi mooy doom bu jigéen bi day teg genn wàllu alal ja bu ko defee nag euh, ëxatu saqiha daal di tàggi ganeen genn wàll ga ndax day xasab àll niki noonu bu fekkoon ne bintul ibni bi day teg genn wàllu alal ja mbokk mu jigéen mi bokk ak néew bi ndey ak bàyyi dikki teg geneen wàll ga ndax day xasab kon loolu mooy mbiri mbokk mi nga xam ne moo bokk ak néew bi bàyyi rek mën nañ la ko baamuwaatal ngir nga takk ko day doon nisif bu fi nekkee moom dong day dañuy doon sulu sëy ni buñ matee ñaar mbañoo ëpp ko dañuy xasabal buñ fi nekkee seen mbokk mu góor dañuy xasabal it bu fekkee ne ànd nañu ak doom bu jigéen mbaa ànd ak set bu jigéen ñoom mbokk yi ci wàllu bàyyi laay wax tey jigéen dañuy daanu buñ fi nekkee ñaari mbokk yu jigéen yu bokk néew bi ndey ak baay li fekk ànduñoo ku leen dimbali maanaam seen mbokk mu góor dañuy daanu it bu doom bu góor xasee am dañuy daanu it bu sët bu góor bu bàyyi ko ci doom ju góor xasee am ak lum suufe suufe dañuy daanu yit bu fi bàyyi xasee nekk dañuy daanu it ci mbokkum góor mu bokk ñoo bi ak bàyyi bu fi amee dañuy daanu yit bu fekkee ne ki faatu bàyyi na fi doom bu jigéen bàyyiwaale fi it mbokk mu jigéen mu bokk ak bàyyi mbaa faatu bàyyi fi sët bu jigéen bàyyiwaale fi it eh, mbokk mu jigéen mu bokk ak ñoo ak bàyyi kon loolu mooy suñu bind tey nit ñi yemale ko foofu ndax xas na gudd duñ mën a jàll ci awlaadul umm waaye boo ëllëgee rek buñ dikkee tàmbalee ci insha allahu taala ñaan suñu borom defal nu dégg ak topp di jéggal bu baax a baax lépp lu ci njuumte rek ku ko dégg mu jubbanti ko